boo ko dégloo ci discours dafa njëkk a commencé pré euh, def dépeindre la situation du pays wax liggéey li ñu fi liggéey wax nag yàq yi ak euh, jafe-jafe yi ak kas yi ak euh, déstabilisation bi ak chaos bi ñu bëgg a mu teg ci ne ñi ko def de deux mille vingt et ak juin deux mille vingt trois ñëpp ku ci taq rek yoon na dal sa ko man ba mu waxee loolu laa ne ah attention euh, Macky Sall dafa nar a bàyyi poste président wala en tout cas prétendre nekkat candidat en 2024 pour se donner une nouvelle légitimité boo xam ne da koy permettre balaa muy dem li war ci réew mi ci jubal ku dëng mu teg la ci yoon te j'ai l'impression que bu ma dégloo procureur mu defar euh, réquisitoire am boobu noonu laa ko mën a tuddee parce que foog naa li mu wax ci conférence de presse bi certainement moom la transmettre juge d'instruction mais may mun a euh, loolu ça ne en deux jours. procédure bu li mu bind noonu kenn mënu ko compiler de manière aussi ordonnée de manière aussi euh, euh, euh claire en vingt quatre heures dama ragal ne boobu ba léegi ñu ngi. xool chaque fois que ñu ngi def enquête jàpp nit ay éléments di leen ñu koy dajalee di compiler ba am dossier bi dossier boobu ñàkkul président Macky Sall gis na ko avant li tax mu waxoon li mu wax c' est parce que peut-être ils des éléments yoo xam ne permettre na ko euh, mu am occasion pour que mu régler cette question nit ñaa ngi naan prétexte vol peut-être ndax c' est l' déclencheur mais waroon nga posé wu question journaliste waroon nañu posé question observateur yi posé wu nañ question lan moo tax ñu xëy rek levé ne nañ bouclier bi ñu defoon euh, euh, cité kër góor gi <laughs> y a des gens même dem nañ ba naan Macky mu ngi waxtaan ak. Euh, ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñu dañuy. cette histoire de portable là est-ce que du woon un prétexte pour lui mettre la main dessus est-ce que c'est pas un piège tendu. non par jëli te dara du xew. non mais euh, yàgg nañ ko bëgg a jëli mais c'était compliqué. no dama ne imagine procureur xëy def jox euh, euh, maanaam la sûreté urbaine wala la section de recherche ordre ne leen dem leen ngeen arrêter telle personne parce que ya ya y a des faits concordants qui convergent vers lui loolu mënoon na ko def. ah mais yombewul woon noonu. non lan moo ko. lan ils ont pris toutes les précautions. Hmm. Euh, boo yoree état. mënuñu woon tëb tëb rek. dem dem dem jàppee ko noonu démb boo yoree état dafa ay contingence yoo war a tenir en compte. nit ñi maa ngi dégg ñu naan waaye lii dañ ko doon def yàgg na gis nga ku xam stratégie militaire ku lire Sun Tzu l'art la guerre euh, euh, war nga mun a comprendre lu tax affaire yi nga xam ne tey moo aboutir aujourd'hui à l'arrestation du président Ousmane Sonko Euh, mu jël temps bi mu jël nit ñu jàppee ko ñu bari d'ailleurs euh, faiblesse de l'État moment yi am na ay moment le coût humain bi xew déjà en deux mille vingt et un le coût humain bi ñu am en juin deux mille vingt est-ce que xel may na président bu nekk nit walla ku yor état ngay nangu di ajouter à ce coût humain beneen coût humain sans nga maîtriser tout ce qu'il faut balaa ngay engager ce que pour man mortel combat bi Ousmane Sonko woote woon peut-être gouvernement moom moo ko engagé ci ni mu poser acte yi in fine euh, seetlu naa ne en tout cas li nit ñi doon redouter ci arrestation président Ousmane Sonko euh, demeewul noonu en termes d'intensité ndax li xewoon en juin deux mille vingt trois bokkul ak li xew temps yi ñu toll donte que y a des casses y a eu euh, c'est y a eu mort d'homme déjà. y a eu deux morts à Ziguinchor y a un mort il paraît ah, à Pikine. aujourd'hui il y a cet attentat parce que noonu lañ koy tuddee officiellement noonu lañ ko tuddee contre le bus Tata mu jur ñaari ñu ci faatu ak ñu ci gaañu ñoo xam ne ñàkkul c'est des blessés graves mais déjà compte baa ngi commencé bari deux deux un cinq personnes déjà parties est-ce que ku jël fon li nga def nii ak Ousmane sunk popularité bu mu am ci xale yi ak ni ñu leen endoctriné ne eh, Ousmane Sonko bu dul moom dara du nekk bu fekkoon sax am nañ projet alternatif en terme de eh, projet bi baax na eh, Sénégalais yi d'accord nañ ci parce que xale yu bari bëgg nañu ko Euh, Ousmane mooy suñ jiit moom lañ yaakaar pour mu doxal ko mais comme il a boo xam ne ñàkkul ak ñoom ñooy yem dignité est-ce que duñu xool naka la ñuy def ba sauver projet bi procès bi sauver ale Ousmane mais apparemment pour ñoom le procès le projet dafa nekk en symbiose euh, ak Ousmane Sonko ba bu Ousmane amul projet bi du am et projet pour mu am il faut Ousmane je pense que moo jur yenn intensité xeex yi